préféré leen toog seen kër nga bañ a ngeen bañ a génn parce que lamb am. Uh-huh. image boobu message message boobu c' est désolant. Uh-huh. bu fekkente ni loolu la ñuy loolu la daw si ta si tali bi. Uh-huh. ñu ñëw si biir enceinte bi ñu fa gis violence. vraiment il faut que CNG. ba pare l' état au plus haut ñu xool nan la ñu mën a jàppalee làmb xool. événement de lutte amee ñu xool nan la tout les forces de l'ordre ñu pendant après et avant loolu mooy solution sinon der lamb day yàqu te boobu nekk mais li ma wax moom mooy ñu limiter le public public bi même bu dee dañuy yokk billets yi ñu limiter le public pour que mu bañ am débordement. parce que Modou Lo Ama Baldé la crainte était là ñu bëree ne yoon combat boobu xeju fi lan moo taxoon ñu wax ko parce que dañu xam ni Ama fii la dëkk ñu xam ni Modou Lo am na mbooloo ñoom ñaar bu ñu ñëwee dañuy am débordement bu débordement amee kenn mënatu ko sécuriser parce que public bi mooy ëpp force de l'ordre léegi amee day yàquwaat on va on va se décourager que lamb violence kese la te loolu arrangé wu ñu il faut qu'il y des états généraux de la lutte ñu mën a xam lan la ñuy organiser les événements de lutte mu bañ a am li yàqute parce que li désolation la on est vraiment désolé mais lu am fii nii triste quand même.